wàccuwaay et puis euh, on espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous commencez une très belle journée ñu ngi noonu dellusiwaat ngeen fii si seen plateau JDA muy plateau bi ngeen taamu tous les jours du lundi au vendredi ma ci ànd ak sama góor bu baax bi Babacar ndaanaan si biir ndaanaan yi ah <laughs> Babacar comment tu vas sant alhamdulilahi rabbil alamin rahmatullahi naka matinal bi mais tey da nga xaw a sedd ah dama ndekkeegul dama tàmm Babacar boobu nga xamante ne day ñëw nii mu Ramatulaay. ci loona jàllu jéeri pour le jéeri mbada. jam tan. galle ma wodi jam tan alhamdulillah honno honno cukaloy alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah nga maa ngi leen di siyaare ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom ah. di leen bëggee bu baax a baax di la bëggee yow tamit ndeysaan mi mhm. lii lañ xam si yow Babacar. bu tàng bi bu yëngu xam nga nag tamit xiif de su ko tudde doom. ma <laughs> xëy ndékk mën naa loolu la rek mais. comme wax nga naa kii ngi naat kii rek mooy loolu quoi naa dëgër dëgër lu. nay dëgër ah nay dëgër nay dëgër démb sa plateau tàngoon naa ah. waaw bon démb de xam nga gars yi moom li tax muy tàng souvent xam nga li ma wax si plateau loolu laa gëm ah. man moom bu bëggee dëgg-dëgg Euh, naafeq moom ñaan ma yàlla nekk ko te itam nag du ma dekk complexe benn doomu aadama ça que li ma koy may boobu parce que bu ñu dikkaatee day kii quoi am làmb daal xam naa ne koy sikk naan violence violence ma ne politique baa këpp violence euh, li yeneen yaa këpp violence yaa ngi dégg mais nag tekkiwul ne làmb dañoo war a def violence violence kenn waru ko def yaa ngi dégg kenn warul def violence mhm. mais encore une fois dama ne sénégalais yi nga xam ne ku bëggul làmb am nga droit ne bëggumu ko waaye nag boo taxawee dañu sànni ay xeer dañu wax wax ju nga xam ne manta ne mhm. ñun dañ lay tontu ba mu saf sap waaw parce que fii gaa yi dañu yor seen mm-hmm. paan bu toj ne ngal ubbeeku toj ne ngal mm-hmm. ñu lijjanti sa potu ndaa bu fet ñu duñ ko nangu <laughs> lamb taxagul ñu tëj stade nit dee yëngatu na yëngatu na waaw gis nga euh, su ko defee ñu daal seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay dikkaat ci plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 8 décembre 2021 dañuy ak yëglikaay sunu lamb la ne xëy dooreeti ko yëglikaay ba tey xëtamu njëkk la nga xam ne nii daal moo fi am depuis dimanche ba tey te ñëpp ba bu ñu xëyee di ca wax daal suñu làmb xëy na tey dikkaat ca mu mel ni ki nag agression ba nga xam ne kera amoon na jëm ci Papa Sow ci làmb ji mu waroon bëree ak Siteu nag daa mel ni ki nag mbir ma mu nga continuer ba tey di dox ndax nag yëglikaay bi nee na daal tey ji ci suba ji daal maanaam boo bëggee dégg-dëgg convoqué nañ ña nga xam ne nii ñoom ñoom moom moo di Papa Sow Seta rëg-rëg ak ñoom Fra ba ci tëgg tëggkat yaag ñu mel ni kii noona moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day soo bëggee dégg dëgg maanaam woote boobee daal maanaam kii di Seta moom boo sàgganee des na ko daal avertir maanaam daal jox ko avertissement ci la nga xam ne moo amoon waaye tëggkatam ba moom la koy yoot mooy dàq ko ci làmb ji dootu fi dugg moom jiili yëglikaay ba nag moo ko wax du sama ay wax moo xëy moom sunu làmb wan ñu ay photo mu mel ni ki nag mbir moomu daal boo bëggee dégg-dëgg daal maanaam yëglikaay bi ne na maanaam boo bëggee dégg-dëgg violence bi nga xam ne ni moom moo nekk ci làmb ji daal la ñu war a seet nu nuy xeexe ba jële ko fi dàq ko mu génn dem ca bitee biti sori bu baax a baax la nga xam ne moo di làmb ak la ko jegeñ ba tey keneen koo xam ne ni moom ñibbisi na ci réew mi muy Balla gay numéro 2 daa mel ni ki nag maanaam daal moom bég na ci la nga xam ne moom la doon teg boppam wala lañ ko doon teg ci wàllum entraînement fa nga xam ne fa la nekkoon ca France ba tax na daal wax na ko yëglikaay bi di sunu làmb daal di xëy jot li nu ko ci xalima ak Abdoulaye Dembélé yëglikaay bi di sunu làmb moo dikk ci lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne nii wala leneen loo xam ne ni ab la te yëglikaay bi xëy jot li nu ko moo dox ci diggante mbul ka nga xam ne ni moo di Auguste mbul nag moom mu ngay dànkaafu Auguste nee na ko sama digganteeg yow boo bëggee dégg dëgg ay korosé yu tàkk xeex ba dugg bu at mënu caa ñàkk nee na ko daal faw man ak yow dananu xeex ak mu gudd mu gàtt xeex moom day am leneen loo xam ne ni yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci moom sunu làmb ab promoteur muy Baba Diaw mi tëb mi tëggoon double moteur coins yëglikaay bi nag ca tuuse mu ngi nu xëy di noo xam ne daal baaba Diaw moom daal am na leneen loo xam ne mu ngi koy lijjante di koy yootaan beneenu combat war a dox ci diggante double moteur ak qualifié numéro 2 yëglikaay bi di suñu lamb daal moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii lamb simple la te yëglikaay bi dikkal ñu ca muy jax muy ay mis yu am doole yoo xam ne daal faral na ko di ko teg ci làmb ji yëglikaay bi na nañu daal jax soo bëggee dégg-dégg daal maanaam dix million daal la fas yéene teg le deux janvier yëglikaay bi nag moo tax mu jàpp ne daal jax ah maanaam wàcce lig Nicolas daal la nar a def quatre ci ginnaaw bi fi Luc Nicolaï tegee mise bu nganda nganda ngan Jackson nag daa mel ni daal quatre millions la indi leneen loo xam ne nii ba tey ca biir yëglikaay ba dañ cay dellu siwaat te yëglikaay ba dikkaatal ca boppam mooy maanaam violence bi nga xam ne am na fi ci làmb ba yàq fi ay bés yu mag a mag a mag ci làmb bokk na ci Baboy Nees yëglikaay bi ne na 11 décembre 2011 la làmb ji amoon ca stade Demba Diop benn bu mètres bu Balla Gaye numéro 2 daw moo yàq làmb ja ba ñoom ñaar mujj ko bëre amateur ya leneen loo xam ne ni beneen combat boo xam ne amateur perta pertaat ko ak waa lamb mooy Garga Mbossé ak lor ak Lagros loolu tamit 9 mars 2013 la amoon xeer moo joge ci kaw tribune ba da dal ka nga xam ne nii moom moo di Garga Mbossé moo xaañu docteur ya xool ko ne mënatul bëre combat ba jaar fa naax saay ba bés booba mujj ñu bëre beneen bés boo xam ne tamit jaaroon na fi yàggul dara dara dara amoon ti la nga xam ne moo di 9 février 2020 ka nga xam ne moo ko waroon seq mu di Alioune say 2 ak ñàkk jariñu moom it balaa ñuy waaj a bëre wala ba ñuy waaja a bëre la xeex am ñu gaañ Alioune Seye numéro 2 ba tax bëréwul yëglikaay ba moo ñëw tey di fàttali loolu bii ci toppaat mooy Papa Sow ak Siteu sunu làmb xëy ñëw dinu fàttali lu mel ni ki noonu moom sunu làmb buñ ko bàyyee dañuy dem record wala buñ fa jógee record la ñu dem record nag mu ngi nu xeemal na daal boo bëggee dëgg-dëgg coow la nga xam ne am na ci Papa Sow ak Siteu yëglikaay bi nee na maanaam ñoom ñaari mbëre woo nañ leen ca CNC moom record moo xëy wax ko bokkul heure yañ leen woo maanaam dañ koo juwatle du heure yu bokk kii day ñëw i heure bi ka ca des xaar ba heure jot mu ñëw lépp yëglikaay bi ne la ca CNG bëgg daal maanaam bëgg daal jàmm am ca ku ci nekk ñëw wuyu si conseil de discipline ba ñu déglu la la amoon lu tax mu am ndax nag gis nañ ca ay mbër yoo xam ne sax woote ba bokk nañ ca mbër yoo xam ne ku mel ni ki rëg-rëg ndax ku ne xam ne ne mook Siteu bokkuñu écrit ku mel ni ki caat mook ka xam ne nii moom moo di Siteu mook Siteu ba tey bokkuñu écrit waaye tamit ña nga xam ne nii ñoom ñooy fara itam woo nañ leen ndax dañoo jàpp na ñoom itam ñoom ko Papa Sow bokkuñu écrit yëglikaay yi ñoo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ka nga xam ne moom àndoon naa kam écrit Brésil si ca bés booba am combat am yegg na waaye dañ koo daan mooy cinq tonnes cinq tonnes nag mooy mbër ma demoon ca rond-point jël la nga xam ne nii daal moo di ay mystique na da ko fay sangoo daal di ko sangoo digg Ndakaaru Njaay bëccëgu ndara kam waaye daa mel ni gàllaaj ja moom andi lu ko benn njariñ ndax fa mu mujje mooy xeex bu metti lañ ko andil duma ko daan ko jël bu réeréeréy yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moo tax suñu làmb ngay xëy tey di laaj loolu mu defoon lu mu ko jural trophée AMPS moom yëglikaay bi ne nag ah dina ko tànn nag xool mbër mi nga xam ne nii daal moom moo raw wala moo dàq bëri ci li nga xam ne mooy saison bi jeex yëglekaay bi moo xëy ñëw wax nu ko open press Tapha Tine yëglekaay bi ne na suba la ci alxames ji fa muy amee nag moo di ca stadium Iba Mar Diop waaye daal li am solo mooy yor say gàllaaj dem ba rompoye sànnaga nga sangoo ko wala nga dem ba jam ñaajo wala yaa xam foo mën a dem di ko fa sangu digg bëccëgu nar kam ci cinq tonnes lan ko mas a gisee rond-point Sandaga ni mu rée nga xam ne àddina bi yépp a ko xam nga dem taxaw fa midi waa une ne da ngay sangoo ay gàllaaj nga ñëw ca combat ba arbitre soufflé bëre woo xeex woo ñu xeex ak yow duma la bëre ak yow daan la kon daal damay yaakaar ne gàllaaj gi day néew ma baaxut ci làmb waaye loo ci mën a dégg entraîné mën a bëree am saw fit da ëpp solo lu mu mën a doon looy def sax man ko da caa gën a wóor ndax nag gàllaajug làmb ñun ca lañ ca xam motlee kaay la ak ay muslaay mi ngi doon Babacar ah seetaan nañ doon nga xamante ne mooy euh, yëglekaay yi. Mhm. ñu des ak euh, suñu journaux bi suñu làmb. Mhm. waa CNG nag dañoo prononcé wu ci loolu nga xamante ne mooy euh, combat bi fi passé ci diggante Papa Sow ak Siteu. Mhm. agression contre Papa Sow audition ce matin. Siteu risque un avertissement. son batteur la radiation à waaw bon mm, xam nga mbir mi bi mu amee ba pare xam nañ ne ñun dina am ay mesures yu ci topp. loolu moom am amul ma dem dañoo ñëw ndax combat bu tol noonu amateur yi li ñu si daj si coona rang fii man ba ma fa xëy naa dem stade dimanche dix heures onze heures fekk nit ñi rang ci port bi di jënd ay billets ala wax de ñoo xam ne kon ca stade bi da ngay jàpp ne fa lañ ndékki buñ buñ duggee ba pare lañ doog a jënd ndékki ndékki yéeg toog parce que xam nañ ne lamb ji dey boo bàyyee ba ay quinze heures yooyu nga du ñëw pour nga dugg ci stade bi lu problème la ñu xëy kon ñooñu daj boobu combat bu toll noonu ñu dem ba arbitre war ko souffler moo ci desoon. Mm. parce que ñaari mbër yi pare woon nañ ngir war a ñëw ci géew bi. Mm. combat bi yàqu noonu. Mm. ah sama kon il fallait que ay ndogal jóg. CNG il fallait que mu jël ay ndogal nag. xool situer les responsabilités mu teg leen ay daan. yaa ngi dégg mm-hmm. parce que tamit bon mbir mu ne rek am na lu koy lu ko lu ko sabab olof nag lu ne lu ne kët ramatulaay mm-hmm. lu ne kët lu ne jonn moo koy faj yaa ngi dégg addina nag tout moment rek loo gis rek leçon la lay servir. dëgg la moo tax it euh, dañoo des si voilà sujet bi ah. servir pour endiguer ce fléau. waaw ça veut dire que. ci servir pour endiguer sa fléau maanaam jéem a def luy tax mbir mi jóge fi njur bi waaw ñu arrêté mbir mi ko mhm. waaw parce que loolu moo war a am ah, parce que defe naa ne violence comme ni ma waxoon rek mhm. man Babacar rafetlu ma ko ci benn côté nag fu mu mën a amee parce que li ma gëm mooy man sénégalais laa du question Babacar dafay yore micro di wax si làmb nitu làmb la wala non non man du ma waxee genre boobu mais damay wax en général ñun Sénégal intérêt intérêt exactement intérêt général surtout man loolu laay wax. maanaam violence la ñu war a bàyyi violence moo amul njëriñ. amul njëriñ ak ku ko man a def ak boor boo ko mën a defee. Mm-hmm. violence nag bari na ay façon mm-hmm. am na bu ñuy def moo xam ne c'est physique xeex pour nit ki gaañ ko. Mm-hmm. wala nga agressé nit ki. dëgg yaa ngi dégg loolu c'est physique mais am na ay violence verbale yu am ci dëkk bi même yooyu dañ ci war da ci war a wax parce que des fois da ngay toog gis même ci plateau yi ñu nekk ñun ñii da fay gis sax ay violence verbale mm. ñoo xam ne dañ leen invité yaa ngi dégg ay sénégalais toog di leen seetaan comme ñoom ëpp ñu ñu leen di seetaan xam-xam ñu di leen manqué respect ci ay kàddu yu jóge ci ñoom di jëm ci askan wi te loolu set violence bu doy doy waar la nit yor soxnaam ci këram mm. di ko violenté ci ay kàddu di ko wax wax yoo xam ne mooy loolu wala soxna di ko def borom këram bëri yaa ngi dégg wala nit di ko def seq ko ku muy ku muy liggéeyal wala wala ku mu seqal nangam mm. kon defe naa violence la ñu war a fexe jëlee ko fi donte nag comme li moo waxoon démb xam naa ne fekk nit ñaa ngi dund àddina di am mm. pour mu jóge fi dina jafe ndax li tax mooy dafa am ñoo xam ne ni Babacar la ñu mel. du ñu fekkee jàmm. Mm. duñ ko lijjee duñ ci dox duñ ko mm. ñoom daal. Mm. na na pour ñoom na fitna safara si tàkk rek. ñoon nag yal na ni yàlla musul ci ñoom. amiin waaye réew mi itam comme sécurité baa ngi fi. awuñu fa ñu leen di encouragé parce que ñu ngi def seen liggéey. ñu mu ñu ngi ci daj ay coono. Mm-hmm. ñoom muy police muy gendarmerie armée bi en général. ay jàmbaar lañ vraiment ñu ngi ciy def seen liggéey parce que des fois nga ñu def liggéey boo xam ne macha allah. kon defe naa itam xëy di di taxaw si naaj bu voilà ah fanaan si ngelaw guddi seddaay. ngir ngir sécurité sénégalais yi. kon tam jar na nañu remercier parce que gis nañ ñu ciy def liggéey bu am am solo quoi rahmatulahi. Mm-hmm, mm-hmm. mais encore une fois daal. violence moom amul sens euh, ci ginnaaw làmb ji ak yeneen ak yeneen boo xoolee làmb bu amee tey. day am suñuy yaay suñuy rakk yu yenn seen paanu ndox wala seen siwo ndox dem di ko jaaye ci ci ci arène bi ñooñu aussi ñu jara bàyyi xel lañu ah, parce que gina violence boobu noonu bu amee ci arène bi rek day dal si ñoom. moo tax que parfois day fekk sax ñu boot ay bébé. parfois nga ñu ànd ay xale. donc loolu noonu ñooñu tamit lan mooy seen wàll ci. Euh, euh, euh, olof kay na olof dana xare ko teew ko mën a nettali xam man làmb bu ne dama ciy dem. muy mbapat ma muy dóor ba. Mm. moo tax ñiy toog si tele yi naan nañ tëj làmb mm. ñun xamuñu li ñuy wax xamuñu ñoom amuñu xam-xam pour mm. man seen xam-xam dafa limité wala ñu ñu nekk ay ñi nga xam ne am nañ problème mu am nañ rànkiñ am nañ lu ñu soxore waa làmb wala am lu ñu soxore mbër mm-hmm. te loolu mm-hmm. wala ñuy liggéey ca làmb loolu ku koy wax parce que làmb bul xalaat ne mbër mi eh, benn Balla Gaye wala Modou Lo rek ñoo ci fay ko ay millions mm-hmm. wala benn Siteu wala benn Papa Sow non non non demewul noonu lamb dafa bëri ñu nga xam ne ñu bu lamb amee ci la ñuy am seen dépense su kër am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci promoteur bi mhm. exemple ñëw jënd fa ay billets yu bëri nombre de billets promoteur bi wàññil leen ko bu ko doon jaayee 2000 mu defal leen ko 1500 wala 1800 mhm. ñoom ñu dem jaayaate ko pour am lu ñu ci tegaat ñooñu tey Siteu Papa Sow am na ci ñoo xam ne te liggéey nañ ci xaalis boo xam ne mën nañu dépense bu ñu bëri xamuñu ñu bëri xam moo tax ñuy wax dañuy telli telli di wax te ñëwuñu fa mbir ma amee mbir nag boo ci bëggee wax da koy gëstu ji wala nga ñëw fa mu amee mm-hmm. ñooñu ngay wax ñuy jaay lekk yi mm-hmm. bu lamb bu mag amee dañuy defar seen ay kii seen ay sandwich defar seen lépp ay lekk ñëw teg di jaay di jaay ah yooyu nga xamante ne ci loolu lañu dama wax la benn butéelu ndox bi nga xam boo demee si boutique bi ñu jaay la ko cent franc mhm. bu làmb amee ñiy jaay ndox ci biir mhm. ñoom xam naa leen xam nañ ma mhm. xam lu ñu koy jaay ci biir cinq cent franc macha allah te gars yi amateur dañ koy jënd kon waa làmb encore une fois dama ne man Babacar man dama leen di sago di leen ndamoo am nag ñoo xam ne ay rax lañu ñuy ñëw di dugg ci pomi di ko yàq waaye ñooñu nañu xam ne dañuy sono seen bopp dong nag parce que li def duñ ko réussir mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. mbër yi ay noble lañu encore une fois nitu làmb noble la mm. am na ñu leen di rax nag ñoo xam ne bokkuñu ci waa làmb fépp gis la voilà événement boo gis fépp fi nit ñi dajaloo dina am ñoo xamante ne dañoo ñëw juste pour yàq yonent bi leen yaakaar ñun mm-hmm. bu nu bindee moo tax Moustapha sallallahu alayhi wa sallam saa bu ñu demee di siyaare ji di ziyaare ji am na fa ay malfaiteurs yu fay duggaale loo yor ñu sàcc ko boo demee ca gàmmo ga bi yonent guddi yonent bi tiwaawoon cene ba wala njaasaan wala feneen boo looyoon ñu sàcc ko màggal ga boo demee Touba mhm. wala daaru wala feneen ak feneen am na ñoo xam dañuy xaale ci biir looyoon ñu sàcc ko est-ce que loolu day tax ñu ñu ñu ñu taxaw ne maanaam kanu fa woo kooka moom la wala nangam déedéet dafa am ñu mel noonu waaw yàlla nañu yàlla musal si ñoom rek te yàlla dimbali ñu te yàlla maa ngi tam maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla wàññi seeni xel du du passé. Mhm. ba ñu dikkaat ci yoon bu baax wi. Mhm. waaw mhm. voilà mu ngi noonu Babacar am na solo am na solo ñu daal di jàll ci kooku nga xamante ne mooy euh, Balla Gaye 2 Balla Gaye su sur sa préparation en France satisfait du travail abattu. waaw maanaam li mu def la jàpp ne moom am na ci mbégte daal gis na ci boppam am na ci satisfaction gis na waaw bien sûr parce que bon boo ko xoolee di nga xam ne kii wax dëgg yàlla nekkuloon France di liggéey. Mm. wala topp lekk ay affaire ak yooyu quoi wax yàlla. Ah, dinaa lu seet ko gisee moom di nga xam ne mu ngi doon liggéey. macha allah ba ñun dañuy natt ci mbër bu ñu ko gisee. Mm-hmm. Euh, dina xam ndax kii ci lu mu nekkoon. mais boo gisee kër bi mu wàcc aéroport nga seetaan vidéo am ci micro euh, Lutte TV di nga xam ne kii ci liggéey la nekkoon ah, parce que itam li mu jëm da koo ñor. digganteem ak Bombardier. da mm. di bu am solo ci carrière am moom <laughs> surtout carrière am. bi moo koy defar. Mm. moo koy ubbi. Mm. waaye itam moo ko mën ay jafe-jafe ndax euh, bu ko gañee li ci kanamam. dina gën a leer. parce que am na ay combat yu mu signé yeneen waaye nag bu fekkee perte da ca am na jaxase lu bare bari ci li ci kanam moo tax nag defe naa ne mu jël ko au sérieux mm. comme ni ko adversaire am jëlee au parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci ne bi am na lu muy apporté waat ci sa carrière muy moom di Balla Gaye ak Bombardier mi mu ko seexal. na solo. Mm-hmm. tous les deux. Ah, ah, voilà aux deux. ñoom ñaar. voilà voilà <laughs> mi ngi noonu su ko defee que le meilleur gagne. que le exactement <laughs> surtout. Uh-huh. <laughs> voilà mi ngi noonu ñu daal di jàll rek euh, Mboul prévient Auguste la bagarre sera inévitable daa mel ni ñaar ñi daal nee nañ xeex mi kenn mënu koo daw. waaw Mboul te daa mel ni moo xëy di ko dànkaafu sax moom. Mm. Auguste ak mbul ñoo war a bëri ah comme xeex mën ta ñàkk te bëri dóor la wax. Mm. nañu xeex. parce que xeex bi moom ci géew ba la jare comme dañ leen a fay ngir ñu bëree xeex dóorante jël la am. Mm-hmm. incha allah rabbi kon nañ bàyyi xel combat boobu xam naa ne combat bu nar neex lay doon. ak retour Auguste Auguste Mbaye Sène waaw boobu nag date bi ma xool. maa ngi jégalu de gars yi. Ah, parce que c'est normal. Euh, waaw waaw li nekk si xel bee bëri ba. voilà loolu <laughs> noonu. noonu la fa demee ah. Uh-huh. waaw defe naa ne combat ba daal. Uh-huh. Euh, su ma juumee le 12 décembre la. ok le 12. incha allah maanaam dimanche bi di ñëw. c'est pour très bientôt. bien sûr dimanche la ok. di daal du yomb. mi ngi noonu ñu ngi koy xaar euh, lutte simple record record 10 millions le 2 janvier Jax va terrasser Luc 4 ans après. waaw dafa battre record bi quoi boo xoolee ci lutte simple bi ah par rapport mise bi mu teg muy 10 millions moom Jax parce que na fi mise yu nga moo lay wan ne làmb kon à tout moment ci benn fan kon soo gisee tey ay promoteurs yi teg ay ay cinq millions ay dix millions ay un lii liggéey la yaa ngi dégg kon Jax ñu ngi koy ñaanal le deux boobu yal na ci génn ak jàmm parce que tamit mu ngi bay waaram ci lutte simple bi ak comme ni ko yeneen promoteur simple yi defee ñoom Ablaye Diop góor production ñoom ñëpp mhm. ak ñoom Ndong en ko ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar ak maam jaara Thiang di jigéen moom tamit nekk ci lutte simple bi am na sax journée mhm. yaakaar naa le douze bi euh, adresse ko loolu moo lay wan ne ñoom ñëpp ñu ngi liggéey kon ça veut dire que làmb dafa nekk facteur de boo xam ne nii mhm. li war daal mooy encadrer ko rek te defe naa ci encadrement boobu état bi mu ngi ci donte nag am na ay rëcc rëcc. am na solo Babacar ginnaaw million yooyu noonu nga xamante ne suñu mbëri ñu ngi koy gagné ak tout est-ce que ñu ngi si jàppale seen seen supporters seen waa dëkk ak yooyu. waaw parce que defe naa ne am na ci loo xam ne xam naa ko. Mm. gis mbëri di ko def. Mm. bari na ay social yu baree baree baree baree bari. Mm. dégg. su ma ko doon lim duma jum mbër yi nga xam ne tey ñu ngi fay ko ay millions bëri na ci mbër yu nga xam ne dañuy def social bu baax a baax même ñu yeggagul ci niveau millions yenn ni sax dañuy social mm. muy lu leer mën na bi bu mu amee dem naa jàmm ak reportage ci Siteu mm. ay machine yooyu manque ndox mm. pour mën na ñaari yoon xaw ma ñetti yoon yoo xam ne am na ko ci ay machine yu bare bare yoo xam ne da ko ut moom Siteu ci xaalisam yenn ni ay dimbale ko ko mu tasaare ko ci zone boobu ci ci banlieue bi yaa ngi dégg. Mhm. daaw dem naa fi mbuur ànd ak bombar bombardier. Mhm. mu woon presse bi kera ay daara yu nekk ci biir mbuur la yóbbu ay dund ay camion ceeb ay suukar ay affaire mhm. yaa ngi dégg. Modou lool noonu la koy defee. am nañ fi dem ci benn pépinière ak moom Balla Gaye de noonu la koy defee kon ñoom ñu ngi li ñu yor ñu ngi koy bokk ak askan wi te li ma lay wax lu leer la moo tax man la encore une fois mbëru Sénégal kenn gënu leen a nekk ay patriote man Babacar maa wax lii waaw euh, wax ji nag mën naa bëri nga toog sa plateau di làkk say tubaab di semacinsin di wax ay affaire te yow fekk na service defoo ci réew mi dara waaw mm. ah, parce que loolu moo ñu sonalaa ah. ñoom ñoo ñuy toog si plateau di làkki tubaab di sànni mm. làmb ay xeer te ñoom defuñu ci réew mi dara lu dul làkki tubaab rek na ci plateau di werante ah, par rapport ak mbër nag mbër moom ñu ngay apporter seen ay soutien ci seen koñ bu baax a baax a baax a baax surtout am na solo ah les loolu lañ soxla actuellement mm-hmm. ku ñu jàppale ak yooyu mm-hmm. parce que ñi ñaa ngi dif ñu ngi am na ñoo xamante ñu ngi en plein de difficultés suñ ndekkee duñ añ bu ñu añee duñu reer ci comprends ak euh, ak yeneen ak yeneen difficulté mbër yi ma lay wax dañu di ay VIP nga di leen mm. xam leen ñu xam leen te mbër yu mag yi mm. ñu ci bëri boo demee seen buntu kër yi ay nit nga fay fekk macha allah wallaay la si macha allah te la ñu mën ñu ngi koy def ñaan yàlla boo ah. boo boo boo demee tëj ñu seen i euh, porte Balla de tey boo demoon golf gis ko ay nit rek kon alhamdulilah boo demoon golf gis fa mm-hmm. Balla gis Balla allah nga dem yoof kër Modou Lo. Mhm. da nga ko fay fekk. Mhm. maanaam ñoom seen làqatu du ñu làqatu sax mën naa ne. Balla Gaye moom bu joxewul ñu laaj ko borom Casamance doo doomi Casamance. waaw doomi ah, Casamance ah. ñun joxe lañ xam. waaw ah, gis nga kon jeex na ñu am bokk ko. et voilà. Mhm. kon jeex na. waaw waaw ñu ñu daal di jàll rek si lutte si journée boobu nga xamante ne mooy euh, en plein jour ah am na lu xaw Sandaga de. waaw non benn euh, ah, benn benn mbër la cinq tonnes. cinq tonnes xam nga moom daa amoon combat Njaay la waaw daa amoon combat. Mm-hmm. bés bii Siteu ak Papa Sow waroon na bëre ci la doon bëre avant combat bi nag xam naa wàllu mystique xaw ma sëriñ ko ko digal xaw la doon wër xaw ma lu mu ko doon utiliser daal waaye dem na ba rond-point Sandaga plein jour naaj bi tàng bëccëg njorok mm-hmm. ndar kam mu jor ay. xarfa fa am di fa sangoo gis nga photo bi nii yaa ngi dégg te rompay sax naa ne siiw xam ne nii ku fa dem di fa sangooy mm, ko fu ne ñu ko fa naa nag loola mu doon def est que amal na ko njariñ parce que kere ba mu ñëwee ca làmb gis nga li journal bi dañ ko corriger maanaam xeex nañoo moom duma ko daan ko looloo am kon encore une fois moom xam na ma man xam naa ko xam naa Njaay laa xam naa keneen mm. nañu gën a privilégier sa jàngi bëri ñoom xale yu ndaw yii ñoom mbër yu ndaw yi bu ñu bëggee atteindre niveau Bombardier niveau Balla Gaye niveau Eumeu Sène niveau mm. Gris Bordeaux wala niveau Tapha Tine mm. ah mm. nañu dem jàngi bëre wala niveau Modou Lô nañu jàngi bëre nañu dem contact yi nañu xam ne ay mbër yu ndaw lañ bañ a yenu lu ñu attanul bien sûr si mais après moom kera bi mu ñëwee ci lam ji doo ko xamee sax ak li mu def yépp te ñu mbër yu ci bëri yu ndaw lii moo leen sonala ah. du ñu bàyyeeku bëre du ñu contact yi du ñu gëm ne ñoom seen talent la ñu war a utiliser pour daan seen adversaire mm. mais ci ay mystique dem ba ay sax nag di fa sangu ay gàllaaj man ba ma ko waxee sax ma ne la non jaru ko <laughs> xanaa gàllaaj boo koy sangu nga nëbb ko sax sutura daa baax mbër yëpp dañuy sango dëngër yëpp ay sango mm. mais mais dañ koy sutural ba euh, euh, da ngay gis ñuy sangu plein plein arène. no non euh, biir non bool bokkul loolu ci arène bi la. arène bi la c'est pas la même chose. Mhm. ak nga dem ba rond-point Sandaga làmb amul dara xewul nga di fa sangu loolu mbër mosu ko def. biir làmb kay mbir am na droit sangu fii loolu yàgg naa am loolooy làmb loolooy loolooy ma làmb. muy noonu voilà. <laughs> la nga tàggatoo. waaw di kontaan si ñëpp di kontaan si yow di wax ne vraiment ça fait plaisir di partager ak yow plateau. Mhm. parce que bon waxtaan bi day neex te day am njëriñ. Mhm. parce que dafa amay lu bëri loo nga xam ne day nëbbutu euh, wala muy nelaw ci man man nga ko yee ci biir wax ji te loola te loolu am na solo quoi. Mhm. parce que kon du hasard Babacar ne la kaay ñu def si bi. parce que bon ñun bon dañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax nit ki ci ay façon de parler ak ay doxalinam quoi di la remercier bu baax a baax comme comme ni ma ko waxoon keroog rek di la ñaanal jàmm la wax ne xale nga yaa ngi ci sa buntu carrière di sa buntu àddina mm. euh, fexeel ba rek mm-hmm. sa yoon nga teg ko ci siraatal mustaqim mm-hmm. ci sa liggéey ci li ngay def parce que loolu moo lay avancé loo loolu laa lay wax parce que xale bu ndaw nga jigéen nga toll nga ci fi xale bu jigéen di toll. Mm-hmm. mais nag encore une fois. Mm-hmm. jàppal ne ka rek lii tax a mucc muy man muy yow muy keneen ak ñi ñuy seetaan. Mm-hmm. mooy ku ci nekk rek di moytu tey jéem a tege ci yoon soo ko defee tey ñaan yàlla. yàlla mën na laa musal di la ñaanal jàmm bu baax di wax na vraiment xale bu am yar nga. bu bëri jàmm waaw di remercier ñëpp. en tout cas am na solo ah mais mhm. Babacar ci yow laa ko gisee ah. yow it euh, macha allah borom baax nga. Mhm. chaque jour ma wax la ko fii da nga yaatu ubbeeku ah. reetaan waxtaan ak man toujours jël ma rek def la def ma sa sa petite sœur. waaw sama rakk nga vraiment macha allah si si yow laa ko gisee. kontaan naa trop et puis euh, je vous souhaite euh, une très bonne journée et on vous donne rendez-vous demain incha allah.